Boulen Faté abonné si c'est une chaîne YouTube. Samsu TV, j'ai un peu aduna. Et activez la cloche de notification. Pour bien gagner ni c'est une chaîne écran. Samsu TV, moi je suis une très. Samsu TV, moi je suis une très. mooy suñu télé. Samsu TV mooy suñu télé dee leen ko seetaan. Samsu TV mooy suñu télé. Samsu aljana ay waay di ko bégee waay ba aljana ana waa daara ji Shamsu TV la ñuy bégee ba aljana ay ba aljana waa Shamsu TV la ñuy bégee ba aljana di ko bégee waay بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه ngeen may nu tuuti kàddu yi du gudd naaw ñu sante yàlla ñu ngi sang sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi wax ñëpp asalaamualeykum wa rahmatullah wa barakatuhu wa magfiratuhu wa ridwanuhu di ñaan jàmmi yàlla ak yërmandeem ak njëggalam ak ngërëmam yal nañ ko yàlla defal kàddu gi mooy kàddu gi mujj hmm. tabarakallahu du sunu kàddu kaddu khalifa bi la di sunu kilifa serigne taala abdul aziz gogu kaddu nak moy kaddu njabootu baye abdul aziz yi gor ni ñi dugg nañ jigéen ñi dugg nañ ñep dugg nañ doli ku wat na ci kaddu serigne par Seck Murtada khalifa serigne madike borom yalla ne en tant que coordinateur ñun la sëriñ bi yabal ci njaboot gi ma am ak sëriñ Madick Junior yaakaar naa ni bari na barab yu ñu dem wala bureau boo xam ne dugg nañu fa toog ci ndigal woo njaboot gi ci woote wu rafet ñu wuyu si wuyu si bu rafet wax dëgg yàlla nekk ku la defal loolu soo ko delloo njukkal sa kàddu warut gàtt waaye dañoo fas yéene mu gàtt lool lool ndax jataay bi la jataay bi xat na lool xam nga boo gisee Serigne Mourtala ni du wax loolu rek ko ko wax boo gisee ku mel ni Serigne Ibrahima Seck Abdourahim ni du wax looloo ko waral Serigne Daouda waxul looloo ko waral hmm. kàddu gi nag du génn cant ak ñaan waaye bala ñoo sori li ñu jëkk def muy jàng alquran muy ay kaamil bi ñu ci paree sëñ Omar Seck dégg ngeen kàddoom am solo lool mën nañ koo doy lool yàlla na ko yàgg taxawee sëriñ Baba Jaw ñëw macha allah nit ñi gën a kontaan waaye bi Oustaz Amadou Makhtar ñëwee yaakaar naa ne lu ci waay tere tere Baye Talla Diagne junj na ko. sa wax day xaw a soof. oustaz ngi lay bëgge ñu ngi lay siyaare. man mag ñi dama leen a bëgg. dañ ma cee ñaanal nag. nitu yàllaa ma ci ñaanal muy sëriñ ma dikkee. ñëw naa nuyu ko. wan ko leetar bi maam seexu Amadou bindoon sëñ Canaba Amari Ndaak mag ko jëkka wan. bi ma ko jàngee ci kanamam ba pare. sëriñ bi am na xaal boo xam ne dani ma yàlla na mag ñi nekk sa cër googu ñaan jàpp naa ne nangu na moo tax bi ma sëriñ taala waxee ahmadou maxtaar munta ñàkk ndax nit ñi miin nañ ko fi te tabaarakallaahu ma waxtaan ak ustaas mu ne ma ban mawdoox laay def ma ne ko mag ñi mag ñi bul génn mag ñi mënuñoo jeexal mag ñi ci mbaax ci jikko yi nekk ci ñoom wax naa ko bërki dem ci Baye Abdoul Aziz su ma koy waxtaanee dafa mel ni muñ day taxaw ci sama kanam ni waxtaane ma liggéey taxaw ci sama kanam ni ma waxtaane ma civilisé taxaw ci sama kanam ni ma waxtaane ma mbokk taxaw ci sama kanam ni ma waxtaane ma dal gi mu daloon moom Baye Abdoul Aziz taxaw ci sama kanam ni ma waxtaane ma nangoo liggéey téeméeri bari koy gerte ñoral nako fi ci coopérative bi koku ku nangawul liggéey du ko def motax daan na waxal mom bay Aziz dom soxna pire bala mat soko rombé ci tol yi da nga nan mi mbam nak ndax nangoo liggéey waye neen su waccé ba ñew kërëm néna boko rombé da nga nan bi wali bi sang nak ndax civilisé kon nangoo liggéey ak jaamu yalla ci loolu lañu mag ñi ko mag ñi nag dama koo mas a wax benn waay ma ne ko mag ñi dañoo leen ëppale lépp mu mel ni xaal du dugg mu ne ma li nga wax nag ma ne ko waaw danga may laaj xam nga damaa xaw a nuru tuuti Baye Abdoul Aziz ci philosophe hmm. dafa amoon philosophe xalif général biu canaba bii Baye Assane Seck nekk na Mauritanie nit ñi daw di sàkku ci moom ñaan di rang Baye Abdoul Aziz magam la kilifaam la ñëw bokk ci rang gi bi mu seen nuyu baax daa tiit ni ko sëñ Abdou mbaa yàggoo fi mu ne ko ax akay mbaa rangoo mu ne ko ax mu ne ko ëpp naa def mu ne ko déedéet sëriñ Assane soo demee cib dëkk la nga fekk ñëpp di ko def te araamul def ko ndox ndax boo ko deful lu yàqu ñu ne yaa ko yàq Assane li ngay def baax na lool waaye am na lu ko gën baas nee na dama ni bëreet taxaw ndax xam philosophe sa papa ni ko lu ko gën mu ne ma ñi yor sa turu yàlla nit ñi soxla la di la ci ñaan am na lu ko gën ma ni ko ah, mu ne ma boo duggatee ci dëkk bi bala ngaa toogati sa benn benn maam yi jox leen loxo seen dërëm yooyu ak seen ñaar dërëm mooy sa ndono dégg nga fa muy waxee kóllëre kóllëre lay waxee maamam góor gu mag daan na wax ni kóllëre de waay su doonub yax danaa ko seeñu ba sama bëñ des ca tabaarakallaahu kon mag ñi ñooy lépp léegi nag ma ni waa ji ñoo ëppale mag ñi lépp mu ne ma loo wax ni ma ne ko ah kay lenn la nu mag ñi ëppale waaye lenn loolu mooy lépp mu ne ma lu nu mag ñi ëppale ma ne ko yàlla hmm. mag ñi yàlla lañ ñu ëppale xool ko ci wàllu xam-xam rek sëriñ seexu tey tafsir yi nga am ci ci sa ci sa kàddu oustaz am ko ci kàddu mag ñi amuñu ko mag ñi dund lañ amoon ñenn ñi xaasiyatu saa yi waaye yow xeetu téere yi nga am ak moyen bi ñu la jox a am tafsir yooyu mag ñi ko tey li nga yor ci wàllu dépense man ñëwuñu ko woon. Mm-hmm. li ngay sanse ci wàllu gànjar ak yu mel noonu. kon mag ñi ñoo leen ëppale lépp waaye lenn la ñu ëppale muy yàlla. Mm-hmm. lu ñu daan def dañ koy def te yàlla tax. Mm-hmm. al alaaqaatu rabbaaniya wa laysat ardiyatun wa lihaza fa hiya baaqiyatun wa abadiyatun waaw relation bi nga xam ne yàlla dong dong nga tax moom la mag ñi daan dund moo tax al aqillaau yow may sin baaduhum li baadin aduwun illal muttaqun tabarakallahu baraana ëllëg relation yoo xam ne yow mal xiyaam ñoo ne dañuy rëbbante naan su ma yëgoon loolu dund mag ñu dunduñu ko dañoo andoon te yàlla tax bëggante te yàlla tax jëmm ji ñuy waxtaane tey ci la bopp suñu sañoon a guddal ndax fi bi toog danañ leen wax kan mooy moom ci muñ ci nangoo liggéey ci jaamu yàlla waaye nag ci fonkoon ay dëkk dëkkandoom ci dëkk bii waaye fonkoon kilifaam Cheikh Mouhamadou Alpha radiyallahu taala anhu matoon ko njaboot sëkk waaye bàyyi Alpha mat ko kilifa yi dëgg la tabaaraka ñu ànd dund ko ci lu gàtt rek ci nga gëm war ma ji mooy daaw nit ñi daan nañ daje ci moom Baye Abdou Aziz damaa bëgg a jël wet mun la toogal keneen ñëw ne damaa bëgg a jël wet mun la toogal ba néeg bi fees mu jóg sol mbubbam ni jóg leen ñu àndandoo rek sëñ Mouhamadou Alpha du leen wax ñi dañoo bëgg jël ci man werd waaye ñi dañoo bëgg jël salatu fatiha may leen tariqa kan. kon dundoon na war ma joobi lolo fi dess na bëna gën war ma joobi ak kan te gog ak yagal yagante googu looloo dox digënté ak serigne pap pa eh, eh, taala doxit digënté ak serigne pap nak tabarak war ma ti maa lente bëggante te du yaq mukk tabarakallah wax naa ko ba abdourahim xalifa bi nga xam ñi koy jooy te noppé guñu

di ay taalibeem lu yàgg waaye lii la yàlla dogal nangu nañ ko ne ko sëriñ Talla ñu koy ziyaara jël nuyoo bi ak siyaare bi lépp jiital ko ci moom di ko jaajëfal tabaarakala am nañ mbégte ak kontaante bu baax suma xol sedd na suma xel daan na li mu am yéene ci kër gi liggéeyal nja amari ndax ak njaboot gi yàlla na ko yàlla dimbali moom àggale ci ak kon sant nañ ñi fi wax ci wàllu diine yëpp Serigne Talla sant na leen sant dëkk bépp waaye sant monsieur le yi fi ñëw moo xam Assane Seck la moo xam maire Jokkul la ak comme man di doon tabarak Ablaye ñaar nga xam ne ci kuréel gi la bokk moom it tabarakal bi mu waxee ñëpp xam nañ ni ci la bokk Maxtaar Yaay ñu ngi sant di santaale nag rajo yi rajo yi tabarakallaahu bala ñoo tàmbali ci kenn rek maar mii la ñuy tàmbalee télé Maam Ahmadou Ndaak Samsu TV ba mu tàmbalee yàgg na fii la ñëw def benn saaru plateau boo xam ni adduna bépp nga koy seetaan di ci jariñoo tabaarakallaahu góorgóorlu fm tabaarakallaahu moom it daara ji fm defal nañu plateau tabaarakallaahu képp si fm def na plateau waaye sunu rajo nag oustaz Nazir moom tabaarakallaahu jàll na ay communiqué euh, yu bari ñu ngi koy sant di sant presse bi yëpp di sant njaboot bi bàyyiwul kenn RTS Mbaye Ndiaye Madiar ah, RTS Mbaye Ndiaye Madiar teew na yàgg na fi nga daan ñëw tabaski ca jamonoy Serigne Madické tabaarakallaahu booba kenn ñëwagul ba léegi ren bi ma feebaree ki mu tudd Serigne Madické mu jëlee si ñun tabaarakallah kon Serigne baa ngi leen di sant ci jàttal ndaa du gudd ndax nee ko tawaxtaane tabaarakallahu yii nu fi doon jàng kuñ ko doon fàttali ba Abdoul Aziz ak mag ñi waaye duñu fàtte mukk sunu jàmbaar ja sunu mag ju baax ja ki nga xamne suñu su doon dund tey tabaarakallaahu fii fi tok mo fi tok muy Serigne Cheikh Abdoul Aziz dina ko Serigne taala si suñu ci moom tabarakallah kon momi it ñu ngi ko ciy fàttaliwaat di ñaanal bu baax baax baax tabarakallah bàyyi wuñu kenn Serigne Abdou Boy ñu lay sant di sant tundu wi yëpp ñi fi dëkkandoo yëpp ñi mako ko so limé am ñoo bayyi

njaboot gaa koy def kon yàlla yàlla defal nu ndam dolli nu xéewal dolli nu sutura li ci des maa sant rakk yi ma bokkal Baye Abdoul Aziz ñëpp su ma tàmbalee ci sëñ Souleymane Abdoul Aziz mënoon naa cee yem ku rafetum xel la jàmbaar la ku baax la lii may dox nu mu ci dégg rek dana ma wax teg ci yoon boo xam ne su ma ca jaaree sax lépp day daal di rafet comme sëriñ Souley bu nu ko santee tabaar allah sëñ Babacar ñëw na Serigne Omar ñëw na sëñ Mori ñëw na sëñ Moussa ñëw na tabarakallah maa Amari Ndaak ñëw na sëñ Arouna ñëw na soxna yi ci des jigéen ñi bu ñu tàmbalee nday as soxna daba ñëpp mat nañ ak sunu way jur kër gi yëpp ñu ngi leen di sant ci kàddu ñëpp laay waxal di ñaax njaboot gi nag ñu gën a góorgóorlu bu baax ci bis bii waaw association imam yi Serigne Malick Ndiaye Serigne baa ngi lay sant moo la tuddal boppam ak imaam yi nga xam ne ñoo jógee Kébémer Oustaz Nasir Gueye ci kër gi la bokk waaye imaam gaañ càm moo ñuy jiite tisbaar kenn la woon ci Serigne Madické da ngay wax ne Serigne benn oto la masa abbu tukkee ko muy oto Oustaz euh, imaam imaam gaañ càm kon loola euh, alaa xala woon bu am seen diggante tabaarakallah waa Kotti tabaarakallah Idrissa maa ngi gis léegi léegi nag bi ma ko xoolee daa am lu ma gis ci moom Idrissa dama koo xamoon mu xawoon a màggat lool waaye léegi daa mel ni tabaarakallah daa beesaat waaw kon Idrissa sëriñ baa ngi lay sant ñu ngi lay gërëm bu baax sëñ Moxtaar yaay maa ngi lay war a gis baax sëriñ ay dara siyaar naa ne baax sëriñ fu sëñ ma dikke mooy sëriñ fu sëñ taala alal sëñ ma dikke mooy alal bayat laa bi te nag jiitu la ko de sama góor bu mag ak sama keroog ba mu dikkee jooy lan jooy sama góor bu mag mu jël loxo teg ci boppam nee na daal yéen muy sedd ci kaw ba ba ci baax suuf mu ñaan ko ñaan ñaan boo xam ne daa barkeel tabaarakallaa muy sa papa kii la koy ñaan tabaarakallaa ci ci ci kër gii di kër góor gu mag kon dëggante bu yàgg la kon sant nañ njaboot bi yëpp sant nañ waa dëkk bi ni ma ko doon limee buñ jëlee Baye Talla Diagne sëñ xaasam mii di xalifa Baye Xaar mu mel ni Serigne Diop ak rakkam tabaarakallaa jaar ci taalam dégg ñoom Ousmane Dieng ñoom bàyyiwuñu kenn rek ñëpp ñëpp rek dëkk bi yëpp soxna Faat Dieng Faat Bala Dieng moom it ñu ngi koy sant ndax it yàgg na fi ci suba ba lay mu ngi fi tabaarakallaa ñëpp rek la ñu sant dëkk yi ñu wër yëpp keneen njob ba ngi nii boo leen tuddee tudd ndeween tudd Badar Gueye Badar Diop di njaaxam Makka ñëpp rek ñëpp rek tabaarakallaa sant nag jagleel daayira a Kajoor yi Ibrahima Diagne jiite ko waaye seet bi ak xalifa mu ca biir ak ku mel ni góor sekk ak njaboot gi ak uh, moo duggee ñoom taxawaay yooyu ñu am yëpp sëriñ baa ngi koy rafetlu na góor góorgóorlu ci bis bi ñaari bis daanaka mën naa ni moo gën a ëpp solo ci bis yi am Thiénaba Kajoor muy gàmmuk Thiénaba Kajoor ak bis bi tabaarakallaahu bu ngeen fexee nag bi ñëw ngeen taxaw ko na ngeen ko war faaw ñu amal leen ak jaajëf tabaarakallaahu sant nañ gërëm nañ bu baax ñi ngi ñaanal ñëpp sëriñ ma jooju nuyul nu sëriñ bi Ibrahima Diagne bu Dakar ñi ngi koy jaajëfal moom it ak euh, daayira dakaar bi yëpp tabaarakala Pape Dieye ñoom ak Assane Dame ñoom ak njaboot gi Mbay Mbuub ñoom bàyyiwunu kenn sëriñ baa ngi ñaan ñaanal waa kër Baye Ibrahima Wade gàndong nga xam ne kenn lañ woon Baye Ibrahima Wade ak góor gi kenn lañ woon ci muxaddam yi Ba Abdou Aziz muxaddama lañ woon tabaarakala kon sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp kontaan nañ waaye du ñu fàtte mukk nag turandooy Baye Abdoul Aziz yàlla da ko joxoon turandoo yu bari 96 la génn adduna waaye yaakaar naa ne bi muy génn àdduna li am ciy turandoo daanaka bu ma bañu te wax nu dul amul man naa ne juróom-benn fukk ak nangam war na ko mën a am kon tabaarakallaahu am nay turandoo fu ne wàdd ak jóob ak kan ak tur sant wu am na ci turandoo ba ci kànji kon sant na turandoo yi seen i taxawaay jël mi sant gi teg ko ci loxol Abdou Aziz Kane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 amana rasulu bima unsila ilayhi min rabbihi wal mu'minun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 ظلمنا أنت مولانا فانصرنا على قوم الكافرين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والغاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره حق قدره حق قدره ومقداره العظيم متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين بارك الله فينا وفيكم دنكنا يلا يلا دنكون نين نغنا يلا bu leen fàtte abonné ci seen seen YouTube samsu TV jant bi leeral àdduna te activé cloche de notification boobee ngeen di seen ci seen écran Samsu TV, mooy suñu télé Samsu TV, mooy suñu Samsu TV mooy suñu télé. mooy suñu télé. Samsu TV mooy suñu télé dee leen ko seetaan. Samsu TV ñooy suñu télé. Samsu Samsu Samsu Samsu TV. Samsu TV la ñuy bëgg ba aljana. waay di ko bëggee waay ba aljana ana waa daara ji Shamsu TV la ñuy bëggee ba aljana waa Shamsu TV la ñuy bëggee ba aljana di ko bëggee waay